kal mbooleem liggéey bi nga xam ne ñu ko doon amal ci littoral bi maanaam corniche beeg li ko wër fi nga xam ni moo jege géej gi askanu Sénégal war cee jariñoo dogal boobu ana na ko jàngate waaw euh, bu ñëw di nga jël dogal bu mel noonu Maître dafa jëloon euh, ku mel ni Pierre Goudiaby Atepa ba kooku sax ne ko bàyyil ma tabaxal la yenn ci ay mbir ci corniche bi ba kenn du ko mën a moom gis nga euh, El Hadj Diouf footballeur bi ñu tabaxoon ci corniche bi xam nga bal bi sax yaakaar naa na bal bi sax daaneel nañ ko. ci loolu la euh, yu millénaire euh, na bi en face euh, mosquée omarienne tamit objectif bi c'était mais xam nga Sénégal waxuma Sénégal sax mi dans ci réew yu bari xam nga ku am xaalis lu muy njëkk xalaat les pieds dans l'eau vue sur la mer. les pieds dans l'eau ak vue sur la mer moom la ñu bari di xalaat xam naa ñoom ay banquiers yu mel ni Pape Ibrahima Senghor loolu la ñuy bu ñu amee weccit loolu la njëkk lijjanti nañu am les pieds dans l'eau ou vue sur la mer gis nga corniche bi en fait littoral bi sax laa war a wax bu Sénégal biñ koy tàmbali spolier ça date pas d'aujourd'hui damay dellu ci régime Senghor Abdou Diouf combien de dignitaires du régime de Abdou Diouf yu laal sax ci Senghor ñoo am tey ay kër wala terrain ci wetu géej gi ci littoral sénégalais dama ci joxe benn exemple dina ma baal mais dafa siiw tellement ci këram ak ni mu tabaxee këram ak ni mu yànjee Ablaye Matar Diop demal këram fii ci ay Anse Bernard rek ay lagon Anse Bernard lagon ñun ñi teeru Baye soogu ñi ñi daan jànge ay lycée nga Gueye ak ay zone yu mel noonu mais moo nekkoon suñu suñu suñuy plage fa lañ daan dem boobu temps corniche bi peut-être tax koon demee noonu ci ay jamono ñu dëkkoon ay booru Fann Gueule Tapée yooyu ñoo doon bénéficier wu ci corniche bi ak lu lu ko lu ko jege pour te dire que ça ne date pas d'aujourd'hui la spoliation du foncier te gis nga tey ñiy xeex démb bokkoon na si ñuñ doon tuumaal ci wàllug suuf Pierre Goudiaby Atepa am ñu ngi koy nuyu mais moom ma jàmbal Diagne tuumaaloon na ko fi ci wàllug suuf rawatina ci euh, domaine u aéroport Léopold Sédar ci lu toll ci ay ay ay hectares yi hectares xam nga lan la ko tontu woon yow mi may tuumaal yow am nga euh, suuf ci booru géej gi am sa kër euh, ñeneen ak ñeneen gis nga li li li sabab ñu dakkal lépp tey da ngay romb corniche fa nga daan jaar di mën a xool géej gi ba ci parcours sportif ñu xam parcours sportif da nga daan wàcc mu am ay coach ak yooyu nga mais léegi dañ ko tëj da ngay dem ba yow sénégalais bi Dakarois bi ci étouffes parce que dañoo tëj lépp am na coow lu fi amoon quand on voulait construire l'ambassade de Turquie mu indi woon ay arrestation indi ay sànni lacrymogène parce que les gens ne voulaient pas qu'on construise fañ ko bëggoon teg ci booru euh, euh, hôtel boobu nekk ci ci corniche bi pour ne pas def publicité ñaata hôtel ñoo nekk ci corniche bi su le régime de de de maître Abdoulaye bi ñu fiy joxe prétexte euh, OCI sommet OCI ci lañ jël bàyyi ñu construire di tàmbali construire ay hôtel ci corniche bi moom moo indi tey ay hôtel yu bari yoo xamee ni ñu ngi ci biir corniche bi te pourtant à côté dañu waxoon ni on va acheter des palmiers ba ñu doon wax sax benn palmier bu nekk xaw ma ñaata 76 millions xaw ma ah. la génération du concret. bu Karim Wade on nous avait proposé des palmiers yu ñu xaw a embellir suñu corniche mais à côté am na lenn si suuf soo xamee ne joxe woon nañ ko pour hôtel yi mën a tabax. parce que sous prétexte que il fallait ñu dalal ay gan dans le monde dafa am ay dëkk yoo xamee ni xam nga lu ñu leen di xoolee ñuy am retomber sur le plan touristique mooy seeni corniche ak ni ñuy defaree ba seen géej ñu bañ ko ñu bañ ko jël wala ñu bañ ko laal suuf si dend ak géej gi euh, la promenade des anglais ca Nice siiw na lekk que siiwaloon après sax mooy attentat ba fa amoon mais c'est l'une des plus belle ci àdduna Alexandria même chose Maroc même chose dañu am ay corniche yoo xamee ni foofu li ñu naan domaine privé marit euh, public maritime kenn du ko laal parce que dafa am ay loi yoo xamee ni dañu koy teg pour ne ni lii di suuf jëm ci wàllu euh, géej gi wala jege géej gi kenn du ko laal parce que dafa am ay conséquence aussi gis nga euh, lii nii Sud Quotidien bi doon ko c'était en 2021 la gestion du littoral de scandales à répétition avant ça Jeune Afrique a sorti un communiqué un un un a fait un article xam lu mu tuddee woon loolu le Far West sénégalais le Far West bi nga xamee ne moom moo am ci euh, euh, corniche bu Dakar ça veut dire que c'est une problématique qui ne date pas d'aujourd'hui mais comme je disais président bu ñëw muy ci Ablaye Wade muy ci Macky muy ci tey euh, président Diomaye Faye di nga teg ay ay jalons pour ñu dakkal yenn yi mais fan lay mujjee euh, Pierre Goudiaby Atepa am na ñeneen ñu mu bokkaloon euh, benn benn benn kuréel goo xamee ni lan moo leen taxoon jóg mooy xeex pour ñu bañ a spolier le littoral am si ñu bari ñoo xamee ni waa Rëbës la ñu dëkk ñenn ñeeg ku nekk di ci xeex mais pour lii ñu mën ko dakkal il s'agit pas seulement de dire à la DSCOS arrêtez les travaux parce que am na benn journal bu ko bind fi cool li mën a am mooy man si moom mon en bone du due am titre foncier wala bàyyi wala lu mu mën a doon en bonne et due jël sama alal dugal pour construire sama loo xamee ne dañ ma ko jox kayit yi di firndeel maa ko moom ma euh, est-ce que dañ ma koy dañ ma koy xañ non dugal naa xaalis pour taxawal sama kër de wala hôtel wala lu mu mën a doon mais dama ko basé wu ci kayit bu ñu ma jox bu ma bu ma moom léegi lañu war a def mooy dakkal kayit yi ñuy joxe ñi fa nekk négocier ak ñoom aussi. parce que sinon fan lay mujjee mooy non mais fay leen ma sama xaalis ki jël terrain moom ko nga xëcc ko ci moom nang ko ci moom bu demee ci kanamu yoon yoon daka naan ah am na droit parce que terrain na te bu boobaa nag loolu euh, euh, même si le président a une grande volonté pour dakkal yenn yi mhm. dina am fu muy buter mooy sur la légalité dafa am légitimité am légalité quand c'est légal c'est légal maintenant il y une possibilité peut-être de négocier mais attention au populisme bu ñu jël benn décision juste parce que sa euh, agrée peut-être une partie wala am na ñu bëgg loo lu mel noonu rek nga ne comme ñii bëgg nañ lii rek naa def lii non da nga koy réfléchir jàpp naa ne réfléchir na bi muy jël décision bi mel nii jàpp naa ne am na ci sax euh, peut-être euh, à côté lu mu mën a teg. pour peut-être ñooñu nga xamee ni après on va euh, euh les euh, euh peut-être euh, spolier nuñ ko mën a woowe ci par rapport ak terrain ñu yore mais li wóor mooy nii dañu war a dë dëkkal loi boo xamee ni kenn mënu ko transgresser xam nga on parle de domaine public maritime ñu tëj lépp mais ñan ñooy joxe suuf soosu ay autorités ñoo koy joxe. fan yee passé coow li ba léegi coow li jeexagul j'ai vu des journaux en parler et même des journalistes yeneen plateau di ko wax euh, ñu ñu ñëw nuyu la euh, eaux et forêts ñoom ñoo joxe suuf yow ñoo xamee ni yow yaa war a sàmm protéger lii di ay ay ay terre euh, nu ñu koy weeti ay forêt ak suuf classé yow nga jël joxe ko joxe ko bàyyi vingt cinq ans renouvelable koo ko jox ay tubaab Pierre Goudiaby Atepa a bien fait de dire que il faut que waxuma sax ci wàllu suuf mais même si wàllu koom ñu jël li nga xamee ni ñoo ko moom ñu moomale ko suñu bopp wala li nga xamee ni dañ ko joxewoon ñu delloo ko suñu suñu doomu réew suuf soosu ñu jël jox ko euh, yi na sous prétexte que dañuy tab dañuy defar ay euh, nuñ ñu ko weete dañuy bay soble waaw. le principal problème c'est comme ni nga ko waxee c'est d'abord revenir sur le sur la loi en fait quoi parce que la loi sur le littoral qui date de 1976 on est en 2024 donc presque ans y a pas de mise à jour ça pose problème parce que la loi dit que euh, le domaine public maritime pour ñu joxe ko il faut que ça soit d'utilité publique mais malheureusement ce qu'on a vu aujourd'hui c'est il y a que des privés sur le littoral et c'est ce qui pose problème en fait quoi ñoo xam ne ñun ñëpp ñoo koy bokk ça ne posera pas de problème. et public lañ lay jox. voilà c'est ça mais on dit que d'utilité publique loolu la ñuy wax OCI bi public lañ ko lañ ko. l'exemple de la CDC immeuble CDC bi mais euh, ça pose problème parce que tour la ay tour jumelle la bu plus de comme je sais pas combien combien d'étages mais ça ça nous étouffe day étouffer Dakar donc c'est ça le problème en fait quoi. bi Atepa joxe mais est-ce que jëmuñu ci raser yëpp parce que. non parce que si oui Ousmane Sonko en en 2020 benn jour muy def muy au niveau de la.